nemmeeku la ñu am fan yi ci média yi nekk ci réew mi jëm si anam yu taskatu xibaar yi di joxe information yi rawatina ci mbirum bus tata bi ñu taal ak ay cocktail molotov ay version yu bëri am ca waaye sikki sàkk ci ndax xibaar yu dëggu la ñenn ñi nag la nguur gi xamle la ñu sukkandiku ña ca des rek ci réseaux sociaux yi mu nekk nag luy tilimal deru taskatu xibaar bi vérification bi ci waroon xëy na defuñu ko ak également am na loo xamante ne euh, war nañ ci bàyyi xel mooy ni du mbir day xew rek nga mën am information yi ci war a am yëpp euh, journaliste mën nga jël sa temps liggéey ci muy ñaari fan muy ñetti fan. ndax dañu war a rek yam ci xibaar yi gouvernement bi di génne ngir jébbal ko askan bi. am lu dëgër alors waxu autorité du rek. Euh, dañuy wax dara nga topp leen ci rawatina bu ñu waxee mbir mu toll ni attentat nga xamante ne du du ndaw il faut rek nga teetaan yow sax xibaaru bopp ànd ak ñoom li ñu la wax nga fexe ba xam ni ah lii kat mu wax nii lu ànd ak dëgg la bañ a utiliser aussi maanaam bu ne attentat rek yow nga ne attentat li di weesu muy ci nervi yi par exemple am na lu ci autorité wax te gis nañ ne euh, àndul ak dëgg donc day à chaque fois ñu jàpp ne du wax du autorité dafa wax rek donc dëgg la. taskatu xibaar bi nag la ko war du lenn lu dul gëstu bu baax xibaar yi laata mu ko joxe bu ñu sukkandikoo ci expert journaliste bi. tey ci ci wàllu information bi rawatina bu dee ci réseaux sociaux yi nga ko jëlee ndaxte wóorul ne ki ko publier moom moo taataan xibaar boobu balaa mu koy balaa mu koy joxe donc dañ ci war a ànd ak tey bu baax. Euh, parce que réseaux sociaux source information la mais aussi source de désinformation la maanaam nga maîtriser. li ngay mën a def ba saytu xibaar ba noppi balaa nga cee mën jaxasoo bi am ci réew mi fan yi ñu ci joxe xibaar yu bari te méngoowul rawatina ci suñu média yi mi ngi jur jiixi jaxa ci askan wi ay xibaar yu wala jóge ci internet bi mën na ànd ak pëccëxoo ci réew mi waaye itam mën na ànd ak sikki sàkka ci seen liggéey ñu